alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala rasulillah bokk yi noo ngi sant yàlla sunu borom tabaraka wa taala di julli ca yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam te di leen nuyu ci lislaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu gannaaw loolu bokk yi sunu fàttalante ak yéen tey incha allah mi ngi jëm ci waa ji nga xam ni ak julleem du ci ànd ak dal daf koy gaawantu maanaam daf koy parax paraxee ñu bari nag xaw a ñàkkal solo mbir moomu te fekk ne nekkut lu woyaf mën naa lor nit ki ci addunaam ak allaaxiraam yépp mën na ko yàqal sax ak jaamu yàlla ndax gaawantu ci julli diglee su ko waaye lañu digle mooy ànd ca ak dal xadiis a ngi boo xam ni noon ko jële ci abu hurayra te na ko yàlla gërëm yonent bi sallallahu alayhi wa di ca wax naan inna arrajula la yusalli sittiina sanatan wa ma tuqbal lahu salaatun nee na benn waay day mën naa julli lu mat juróom benn fukki at te benn julli duñ ko ko ci nangul maanaam nit ki mën na julli lu mat soixante te amul benn julli buñ ko nangul loolu yàlla nañ ci yàlla musal lu metti la loolu lu koy waral yonent bi alayhi salaatu mu ni ndax kat mën na am waajoo jee di julli ay rokkoom matul walla ay sujootam matul maanaam bu jàppee ay woomam war sëgg mooy rokkoo sëgg boobee mën na am du mat walla bu jëlee ab jëwam sëpp ko ci suuf muy sujjóot sujjóot boobee mën naa bañ a mat la koy waral nag léegoo-léeg muy rukkoo ga mën naa bañ a baax mën naa bañ a mat ci gaawantu gu muy gaawantu walla ci yàkkamti gu muy yàkkamti kon sujjóot gu ñàkk a mat wala rukkoo gu ñàkk a mat mën na tax nit ki duñ ko nangul ak julleem doonte noonu lay jullee diirub juróom benn fukki at sax mën nañ ko ca bañ a nangul genn julli kon loolu du lu woyof kon jaadu na ci doomu aadama ji mu fexe di matal ak julleem ci rokkoo ya ak sujjóot ya ak taxawaay ya ak njàng ma it beneen a ngi nii mbokki jullit yi xadis boo xam ne ñu ko jëlee ci amr ibnul aas yal na ko yàlla gërëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mas a gis benn waay boo xam ne mu ngi doon julli waaye nag ba muy julli waaja ay rokkoo matul te buy sujjóot da koy gaawantu maanaam ñaari sujjóot yépp da koy defandoo ba mu mel ne am picc muy muy for picc muy for dugub tey boo gisoon ganaar guy for dugub ni muy def gémmiñ gi di gaawantu am na ñoo xam ne bu ñu sujjóot noonu lañ koy defee ñaar yépp dañ koy taxañ rek def ko wala bu ñu rokkoo sëgg ma du mat wala siggi ma du mat nañ sëggee rek lañuy ñuy jàllaate ci suuf su jóot bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam gisee waajooju nag yonent ba ni kii day nii muy def bu fekkee nii lay def ba faatu ca déglu leen bu baax mu ni kii day ni muy def nii bu fekkee nii la ko nar a jàppee ba faatu ci ba dee na xam ne dee na ci lu dul yoonu muhammad alayhi salaatu wassalaam maanaam dee na te dee ba muy dee nekkul ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk la hawla wala quwata illa billah maanaam kon dee na ci sero dee na ci lu dul lislaam dee na ci lu dul yoonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax yonent bi mu ni kiikat day for ci julleem gi comme ni am picc di foree ba tey yonent bi alayhi salaatu di nettali mu ni ki nga xam ni ay rokkoom sot matul ay sujjoo ay sujjoo tamit matul nga xam ni day for comme ni am picc di fore yonent bi ne na kooku daa mel ne ku xiif lool dafa mel ne ku xiif lool bëgg lum lekk ba regg waaye nag bi mu ñëwee benn tàndarma dong la lekk walla ñaari tàndarma te yonent bi alayhi salaatu ne na kooku loola mu lekk du ko jariñ dara ci xiifam googu benn tàndarma mënta faj xiif ñaari tàndarma it mënta faj xiif kon kiy julli di gaawantu ci julli ga su jóot ya matul rukkoo ya matul di ko parax-paraxee nee na kon julleem du ko jariñ dara moom it loolu nañ ko bàyyi xel bokki julliti beneen a ngi boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci abu hurayrata yàlla na ko yàlla gërëm buxaari yu solo xadis bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa mas a nekk ci jàkka ji benn bis am benn waay bu dugg ci jàkka ji bi mu duggee ci jàkka ji daldi di julli xëy na julli na julli nuyu jàkk bi mu jullee ba noppi daldi ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy nuyu yonent bi fay ko ak nuyoom ba noppi ni ko dellul nga julli ji ndax kat julli woo dégg nga ko de waaja dem julliwaat ñëwaat nuyuwaat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ni ko dellul nga julli ji ndax julli woo mu defaat ko ñetteel bi yoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko dellul julli ji ndax kat julli woo fii bàyyi leen ko xel bu baax kon waa ji ak julleem da ko ñaawal julli ga rukko ya matut su jootee matul da ko gaawantu àndut ak dal mais yonent bi alayhi salaatu wasalaam néewu ko sa julli gi gaaw na de néew ko a ah, yow sa julli gi ñaaw na di néew ko yow moom sa julli gi gaaw na di waaye daf ne ko julli woo maanaam julli amu fa kon la nga def du julli sëgg ak sigg la rekk waaye nag julli woo bi mu ko waxee loolu ñetti yoon waaja ni ko maa ngi waat ci yàlla mi nga xam ni moo la yónni ci dëgg man de mënuma lu gën a rafet lii ma def lii dong laa man ci julli yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko kaay ma wax la nu ñuy jullee kaay yonent bi ni ko soo ñëwatee du war a julli nanga nga kàbbar nanga nga kàbbar boroom xam-xam yu bari sax wax nañ ni ci lii ci lañu jëlee faratay julli wala bokk la ëpp ci faratay julli ci xaddis bi la jóge yonent bi ne ko boo ñëwatee ngir julli na nga kàbbar boo kàbbaree ba noppi na nga jàng faatiha ak loo man ci alquraanul karim nga jàng ko ca loo ci man rek baax na ba tey bàyyi leen xel bu baax néewu ko boo jàngee faatiha na nga jàng aw saar de bu ne ko woon boo jàngee faatiha jàngal saar kon day mel ne ku jàngul aw saar rek amoo julli waaye def ne ko boo jàngee faatiha loo man ci alquran rek jàng ko ca teg ko ca ginnaaw faatiha ja kon ki jàng benn aaya mbaa ñaar mbaa ñett mbaa juróom mbaa xaaju saar wi mbaa saar wi yépp baax na mu ne ko kon boo jàngee loolu ba noppi summa ma indi na raake an mu ne ko nga sujj nga rokkoo nga jàpp say woom sëgg ba dal nee na ko ba dal ba nga xam ni dal nga cër bu nekk dugg na fa mu war a dugg su ko defee nag su marfa xatta taatadi la qaiman nga daal di siggi boo siggee nga taxawaat joddu ba ànd ak dal cër bu nekk dellu fa mu nekkoon kon ànd nga ak dal nee na ko soo defee loolu nag nga daal di sujjootaat su masjud xatta tatma inna saajidan nga delluwaat sujjóot ba dal bul sujjóot rek siggi sujjóotal taxaw fa des fa nga ànd ci dal ak teey ba ba dal nga doog a siggi mu ne ko su marfa xatta tatma inna jaalisan nga siggi toog ba dal cër bu nekk tegu fa mu war a tegu ba dal nga dellu sujjóotaat boo sujjóotaatee nga nekk ca ànd ak dal ak teey ba dal nga siggiwaat bu ko defee nag mu ni ko sa julli yépp na nga ko defee noonu sa julli gi yépp nanga ko defee noonu maanaam na nga ànd ak dal ci julli gi yépp bul ko gaawantu bul ko parax-paraxee bokki jullit yi euh, xaddis bii ma la mujje jàngal am na beneen jàngat boo xam war nañ ko bàyyi xel ñun ñépp bu bokkut ak jàngale julli xadis bi ñu ngi ko tuddee xadi xadiisul musii'u salaatahu maanaam xadiisub waa ja doon ñaawal ak julleem maanaam bi yonent bi nekkee ci jàkka ji waa ji ñëw di julli julli gu ñaaw googu ba léegi kenn waxu la diw la dañ ne la rekk benn waay te saxaaba yi xam nañ ko mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam na ko mu waaye kenn tuddul turam ci xadis bi kenn newul diw la dañ rekk xaddiisub ka doon ñaawal ak julleem lan moo tax ngir bëgg suturaal ko moo tax kon war nga ci dégg ni man mii dey war naa suturaal sama mbokkum jullit ci anam gu mën a doon kon yow mi toog fas yéene xawi sutura sa mbokkum jullit bàyyil xel lii yonent bi def alayhi salaatu wasalaam ak i saxaaba suturaal nit ki ba ci am njàngale kon yow mi jàngalewut war nga suturaal say bokki jullit nga bàyyi ko xel bu baax ba ca des mooy am na benn nettali bu ñu nettali ci yaa Aïcha yal na ko yàlla gërëm ñu ni yaa Aïcha bu daan saraxe da daan jël sarax bi defar ko ba mu jekk def ci parfon ba mu xeeñ neex lool mu doog ko yëkkati saraxe ko buñ ko laajee ni ko lu tax ngay def loolu mu tontu leen ni leen ndax kat sarax bii may yëkkati di ko saraxe ci loxoy suñu borom lay njëkk a tegu bala moo tegu ci loxo faqiir bi wala miskin bi loolu moo tax dama koy rafetal ba mu jekk parfum ko ba mu neex ma doo koo joxe ndax ci loxo suñu borom bi lay tegu nettali bii nag donte borom xam-xam yi am nañu ko ci jam ni yaa Aïcha waxu ko waaye li wér mooy bépp jaamu yàlla bu nit ki di def ci loxo suñu borom tabaraka wa lay tegoo kon laaj nañu rafetal ko jekkal ko ba mu jekk te ànd ca ak ragal yàlla gu mat sëkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla day bëgg na képp kuy def dara nga rafetal jëf ja ba mu rafet lool loolu nag dara jiituwu ci jaamu yàlla booy julli ci loxo suñ borom lay tegu booy woor ci loxo suñu borom lay tegu booy wax lu baax sax ci loxo suñu borom lay tegu booy jàng alquraan it ci loxo suñ borom lay tegu booy saraxe ci loxo suñ borom lay tegu yii yépp loo ci def lu ne laaj na nga rafetal ko ànd ci ak tey ak dal jekkal ko ba mu jekk ndax ci loxo suñ borom la jëm am na téere bu ñu wax laxdari yu ñu baree baree bari daanaka ci lañuy ñuy tàmbale jàng fiqhu dafa wax ni ci biir téere bi am na ci bunt buy wax naan ni ida atayta ila salaati fa farrig qalbaka min addunya wa ma fiha nee na boo ñëwatee ci julli na nga dindi sa xol ci ëdduna ak lépp lu nekk ci ëdduna jël sa xol nag wékk ko ci ki nga janoon muy suñ borom bi tabaraka wa kon loolu mooy julli kon nag loolu mooy sunu fàttalik tey bokki julliti yow mii di julli te àndu dal àndu ceeg teey di gaawantoo ko yàkkamti ba sa jóot ya ñàkk a mat wala rokkoo ya ñàkk mat sa julli mën naa bañ nangu ndax yonent bi ne nit ki mën naa julli soixante te julleem dara du ci nangu ndax gaawantu gum koy gaawantoo te waaye julli na ci kanamam gaawal ko lool ba mu noppee def na ko julli woo gis nga ko te misaal na ko nee na kooku moo ki xiif xiif gu metti ba noppi lekk benn tàndarma ñoo yam tàndarma ga mënta faj xiifam waaye yow mi julli di ko gaawantu it julli ga jëriñu la dara kon nanu ko bokk bàyyi xel ñun ñépp yal nanu nu buur yàlla subhaanahu wa taala boole defal tawfiq defal nu yiw defal nu jàmm fi dunya wa aaxira defal ko mbooleem jullit wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu